وإياك نستعين اللهم إياك نعبد بعونك وحولك وقوتك وتوفيقك وتيسيرك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك في كتابك الكريم على لسان أحب وأقرب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت له إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ولهذا مددنا إليك أكف الدراعة والابتهال إليك لا تجرؤا عليك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونسألك اللهم بحق هذا القول وبحق من أنزلته عليك علي أنزلته عليه أن تحفنا بلطفك وتغمرنا بسوابغ فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تتحفنا بكمال العافية ودوام العافية وعز العافية والاستتار من جميع نواحينا بالعافية إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومصاحبة ألطافك الخفية في جميع تقلباتنا سبحانك اللهم ما أعظمك وبحالنا ما أعلمك وعلى فرجنا ما أقدرك أنت ثقتنا ورجاؤنا اللهم اجعل حسن ظننا فيك غفران ذنوبنا وستر عيوبنا ومحو زلاتنا وقضاء حوائجنا وشفاء أمراضنا وتأليف قلوبنا وتوحيد كلمتنا وتسوية صفوفنا بمحض الفضل والجود والكرم ونسألك اللهم أن تعاملنا وموتانا بالعفو والغفران والرضوان ودخول الجنة غدا بعد أعمار طويلة بلا حساب ولا عتاب ولا مناقشة ولا, مناق... ولا مطالبة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عدنا من عبادك الذين تقول لهم غدا تفضلا وتكرما منك بجاه أحب خلقك إليك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذه دار كرامتي يا عبادي ادخلوها بسلام آمين اللهم ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا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 ñu ngi nii fi baytika ñoo ngi nii ci sa néeg bii maa diina ilayka aydi daraati wal ibtihaali ñoo ngi nii ne say sunu loxo yi tàllal la ko ànd ak toroxloo wàcc sunu bopp taalibiina minka shafaata bi jaahi ahabi xalqika ilayka sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ñaan ci yow nag ak tin ak ak tin ci barkeb ki nga xam ne nii moom nga gën a sopp ci sa bindeef yi muy sallallahu alayhi wa sallam li tarxamana wa taxfir lana zunubana wa taqdi xawaaijana ngir nga yërëm nu nag dafa nu ko dawet noo ngi ci boole ngir nga yërëm nu te ñeewan te nu te itam yow yaa ko yeeyoo wa tuyassir lana jamia matalibina ad-dunyawiya wal uxrawiya yàlla na nga nu yeewe nalal yàlla na nu yombalal sunu càkkutéef yépp yu àdduna yeeg yu laaxira yi wa taftaxa lana abwaab al arzaaqi wal xayraati wal barakaat yàlla yàlla nag nu ubbil bunti yiw yeeg jàmm yeeg wërsëg yeeg yu baax yi wa taaxuda bi aydina axda al atfi wal xanaan yàlla yàlla nga ne nuus ci sunu loxo yi jàpp nag ñeewanteeg tee ndànk rek wa tulhimana rushdaka yàlla yàlla nag nu yekkee wal sëg njub nu jub wa tutiila acmaarana yàlla yàlla na nga nu guddal sunu fan yi yàlla na nga ko guddal wa tashfiya amraadana aljismiya walqalbiya yàlla sunu feebar yi ràgg xol yeeg yu yaram yépp yàlla na nu ko defal wa tajcalaha bacda alshifaa'i kafaaratan wa tahaaratan wa ziyaada yeenu tëdd nag yàlla na nga nu ko defal muy kafaara sunuy bakkaar wa tarxama wa tucaamila mawtaana wa iyaana te yàlla na nga nu yërëmal sunu way dawee ak nun sun gannaaw bakkan wa tucaamilana ma umatu amidana wa iyahum bil afi wa ridwani yàlla yàlla na nga jëfanteeg ñooñee dem ak ñun ñii demagul yàlla na dem gi yeex ak njëggal ak ngërëm ak yërmande wa duxulil jannati bila xisaabin wala iqaabin nan ca boole dugal nu àjjana te bañal lañ bët sunu dara rek watu وتؤلف بين قلوبنا كما ألفت بين الروح النوراني والجسد الظلماني nga fab ak ruu mu sell nekk ci biiram goo tappe yaa ko man yàlla nañ ko tappe sunu xol yi wa tuxaqiqa lana imanana yàlla sunu ngëm gii gunsu ngëm gii yàlla nu ko wóorale jàng ba sunuy xel dal wa tutahira qulubana min danasi almaasi wal asam yàlla sunu xol yi yàlla nañ ko raxal ba mu set wécc ci tini mi mooy yàlla tooñaange wa tusawiya sufufana yàlla sunu sappe yi ko yemale ba mu ne teer ne rob watu waxida kalimatana. yàlla sunu baat yàlla na ko def muy benn lu ñuy wax rek ñëpp ànd ci. li mahdil fadli wal juudi wal karam. nga def ko nag ci sa sellu nga néew géeg sa mbaax géeg sa tab. innaka waliyu zalika wal qadiru alayhi. yàlla rek a méngoo loolu yaa ko mën a def yàlla na ko def. allahumma inna nasaluka salaamata wan najaata. amiin. min suui alxatimati wa suui almunqalabi wa kaabati almanzari fi almaali walahli walawlaad wa min qisari alumri wa mawti alfujati wa miitati alsuui wa saktati alqalbi wa sayii aladwaai waddaai alcudaali walamraadi almaxuufati alfattaaka maa tabra'u minha wa maa laa tabra maa naclamu minha wa maa laa naclam wa suui zanni bika wa bicibaadika والوساوس والخواطر الشيطانية والشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب والآثام والمعاصي المعوقة للعبد عن الوصول إلى مولاه والمرض والموت في السفر والكوارث الجوية والبرية والبحرية اللهم احفظ المسافرين منا والمقيمين بمحد الفضل والجود والكرم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ولا تجعل اللهم هذا اللقاء الأخوي في بيتك الكريم هذا آخر لقاء وآخر جلسة وآخر وعد وآخر بدع بنا بمحض الفضل والجود والكرم إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقه اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه مفتاح سر العالمين من العدم إلى الوجود الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلاة تغفر لنا بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتقضي حوائجنا وحوائج المسلمين وتطيل بها أعمارنا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 كم يقم بمصالحها يوشك أن تغرق أو تنكسر nee na nag gaal moom liñ ca miinoon capitaine bu koy giide kon gaal gu amul amul capitaine wala am na ko sax waaye daf ne yang toog ca baar bay mandi du ne nii du ne naa gaal gu mu la mu ci ci ñaar mooy téppéeral dem yoonam mooy sawire wala mu ne xareet nit ña tuuroog yépp ca biir géej ga mooy yàlla waxul ak ñun walakum fi rasulillahi iswatun xasana wala déet mooy yàlla waxul woon ak ñun ca téeréem ba ne walakum fi rasulillahi iswatun xasanatun mooy yéen ndax sama ndaw lii ma yebal ci yéen doyu leen sëkk royukaay waaye teg na ca lëfkat waaye ba nu ne kii yàlla am na lu mu ca teg de liman kaana yarju llaha wal yawmal axir waaye ka yàlla ka may dogal ci moom nag mu roy yonent bi mooy